la la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi maa ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu ko ci soxna Aysatu Mbàkke bintu soxna Daba ànd ak soxna maam Fatima bintu soxna Daba moom maam Cheikh ñu yëkkati ay kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci sëriñ Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mouhamadul Mamoun ñu di ko ñaanal yàlla sun borom yàggal ko filool lool doole ak wéram njaboot gi ñëw na toog nii di ak njabootam soxna su wax ne liggéey bii kat day benn liggéey boo xam ne ku xamoon loo ci jëlee li nga ciy jële ku ko xamoon booy ñëw yaa war a fay ña ndax kenn nattablewut ne bis bi ñuy waajal muy bi sëriñ tubaa jóge ci géej gi ñëw fekk si rakkam ju baax ja di Cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta bu doon ne bisub tey la ñu ne leen talaata wala àllarba la sëñ Touba di ñëw fu mbooloo mën a nekk danga nga daje Daaru ngir bale ko balaa sëñ Touba ñëw te day mel na rek loolu moo amaat ñibbisi sëriñ Touba jóge ci géej gi bisam boobee nga xam ne moo waxoon ne yaa murshidan illa ya rusda yaa man lahu shukriya min sil xihda day mel ne cant googu muy wax boroomam subhanahu wa taala te di ko ko ko ko sant ci wér wi ñu nekk day mel ne loolu mooy màggalub Daaru Salaam kon képp koo xam ne woowoon na la nga bokk ci association yi nga xam ne ñooy set setal dëkk bi moo xam nga bàyyi ko ci daayira say Fawzayni ak mboolem fédération ba moo xam nga bàyyi ko ci ahlu café ak mboolem fédération ba di soxna maam Isa moo xam nga bokk ci ahlu minan ak mboolem fédération ba moo xam nga bokk ci kansul muhtadin bi nga xam ne moo lëkkale daayira yooyu yëpp te soxna asu jiite leen moo xam nga bokk ci mbootaay yi nekk Daaru Salaam rawatina waa sancaan yi ci sëñ Fallou Tine ca bopp ba moo xam nga bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall te Serigne Modou Amine te newoon fi moom Serigne Fallou Fall moom sëñ Cheikh Fall Fatikan àndoon ci liggéey bi ak association yi bàyyi ko Mbàkke ak yi bàyyi ko Gédé yëpp sëriñ bi soxna si nee na mi ngi yëkkati kàddu yu cant ci turu Serigne bi di leen ñaanal la Serigne Touba waxoon ne Cheikh Ibrahima Fall nee nañ Serigne bi dafa woote ci njaareem ci atum 1925 dajale góor yàlla yëpp ñuy wuy si nee na bi sëñ Banda Sow bokkee ci ñuy wuy si Cheikh Ibra di ko gàttandu ba gis ko ne ko di ko wër ci mbooloo mi ba gis ko ne ko ah doom yow noo tudd mu ne ko band saw mu ne ko fuñ duyee sa band yi mu ne ko ci dëkkub Touba ba mu ne ko loo fa doon léggéeye mu ne ko root ndaayi Touba ak bale suusa mu ne ko ko xamoon tuyaaba ji nga ciy jële de looy liggéeyee la ci sañ Touba ci buub ak root nga ko yemale ndax damaa gis ba nga jógee ba fi ne jéego boo yëkkati kanu tàkk ca aras te dara mayu ko ko li weesu setal dëkkub Touba boobee te Touba mooy Daaru Salaam xam ngeen ne Cheikh Mahamadul Moustapha al Karim daana woote mbale moo xam ne surtout suñ koy def day jël baleeg boppam bale lu toll akum meetar daal di wax ne tuubaade day ku fi setal lu toll ne sa bàmmeel suñ borom setal ko sa bàmmeel ba doo fekk dara lu tax kon ku ne xam na ne mbale li ci nekk ci ay tuyaaba bari na loolee nag kon bu ngeen jógee jëm si Daaru Salaam ndoo yéen ñëpp ba dëkk bi set nii ngir waajal suba fu daaray alxuraan mën a nekk ñëw Daaru Salaam ñuy jàng alxuraan di teeru Serigne tubaa ba àllarba ñun ñëpp ñu maase ganale Serigne Touba ngan nga ko maam Cheikh Anta ganale woon ku bokk ci loola war ngaa sant yàlla bu baax kon soxna Astou nee na mi ngi leen di yëkkati ak cant ci turu Serigne bi di ñaan yàlla yal yàlla ni ngeen seetale dëkk bi yal na leen yàlla seetale ci bàkkaar di sant bu baax a baax a tam mbootaay gi nga xam ne moo lëkkale daayira euh, asaabul jannati bàyyi ko ci Touba jumaay Touba ak soxna Njaxat Silla ak soxna Ndey Silla lëkkale ñi nga xam ne ñooy bale fii ci dëkk bi ñoom ñëpp la soxna si wax ne sant na leen ci turu Serigne Abo di ñaan yàlla nag yàlla yàlla fóot seeni bàkkaar ba mu set wicc mu duy leen ay xéewal ba ngeen fees dell ba màggal gii li muy gàtt gàtt bala ñu àgg ci màggal ga kenn ku nekk yokku ci ay xéewal ba yëg ne yokkoo nga Daaru Salaam jigéen ñi ci seen njaboot gañ bàyyi suñu borom boole leen ci milliardaires yi liggéeyal Serigne Touba nag bu ngeen di bale seeti seen i camions yi bopp ngeen ba gaare du ngeen ko àbbu kenn nee na mi ngi sant ñi nga xam ne ñoo jiite woon liggéey bi di Serigne Mokhtar Wade ak Serigne Ndiaga Ndiaye ak kilifa yi ko àndaloon di Serigne Abdou moom sëñ Omar ànd sëriñ Serigne As Guédé ak sëñ Mamor ak sëñ Cheikhouna moom sëñ Aline moom sëñ Modou Aline ñoom ñëpp ñu am ci taxawaay ngir waajal bis bi kenn ku ne bëgg mu jag soxna Astou daal nee na mi ngi leen di sant ci turu Serigne Abo di ñaan yàlla nag yàlla nañ ko te teewaat déwén. ñi ngi sant itam bu baax nag cant goo xam ne euh, sëriñ Serigne bi daf ma ko waxaat léegi di ko seereel soxna Astou nee na mi ngi seereel liggéeyu daayira nooru daara nii Touba ci kanam ndax nee na bi liggéey bi tàmbalee Serigne Abibullahi daa jokkoo ak moom na ko mbooleem commission bu nekk ci Touba ca kanam. danaa ko yebal mu ñëw Daaru Salaam xool lañ ci war a def lépp ñu def ko yebal nañ fi ay ñoo yebal peel yi yebal ay benn def ci seen i gasoil di santit bu baax meeru Touba di sëriñ Abdou Lahad Ka moom it yebal na ay otoom jox leen gasoil yebal oto yi vidange def ci gasoil te nee na feeg liggéey bi ak àggut duñ fi jóge di se di seere itam waa ICC loolu préfet wax na ko nee na ñoom li tax ñu leen di sant mooy na ca liggéey ba moo leen tee ñëw ci réunion bi nga xam ne moom lañ doon woote muy CDD bi lañ doon woote ci CDD ba ñoom dañ na bàyyi leen ñu dem defi ko kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant commune bu Mbacké ci seenub taxawaay te kenn ku nekk loo fi indaale woon ci njàqare yàlla na ko suñu borom dindi ba mu set ko fi indaale woon jàngoro yàlla nga ko wéral yàlla na la yàlla duy ay xiiwal may ñu teewaat bis bi te àgg ci ci bisimilahi rahmaani rahim weesu ko ci alhamdulilahi rabil alamin ñu sàkku ñëpp wax ne sëriñ Abo Mouhamed yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér soxna dabam maam Cheikh Anta yàlla ko fi suñu borom gën a yàggal te gën a dolli ak te defal ko mbooleem njabootu sëñ gépp defal ko mbooleem njabootu sëñ Touba gépp jërë ngeen jëf mën ngeen a maase tàllal seen loxo tafas ci li ngeen bëgg soxna maam Faati bisimilah. bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum yéen mbooloo mi ñuy sant sëñ Abo mi nga xam ne moo ñu dajale woon fii tey. ñu naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñi ngi sant mbooleem mbootaay yi fi teewoon ak mbooleem ñi jóge woon tuubaa ak ñu jóge woon Mbàkke ak association yi ak daayira yi mbooleem koo xam ne rek dikkoon nga ci mbale mi ñu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal ndax suñ xol sedd na guyu ndax lépp loo xam ne yaakaaroon nañ ko ci mbale mi rek am nañ ko ba romb foofa nag far ndax nëgën daana fekk sax duñu pare te tey heure yi fekk na mbale mi pare togg yi niñ ko bëggee woon amee nañ ko ni lépp loo xamante ni séenu woon nañ ko rek am nañ ci loo xam ne kawe na suñ jot ñi ngi sant nag cant gi ñu di ko tàmbalee ci sëñ Abo ak mbooleem sëriñ bu nekk ci Daaru Salaam gépp nag di sant kilifa yi ñu booleeloon ci suñu waañ wi ndax ren yi gisuñu dara lu naqari ndax kilifa yi ñu booleeloon suñ kàddu nag ñu ngi koy tënkee ci kàddu soxna ndeyjoom mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ñun jigéen ñi ci mbale mi ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp xol bu sedd daal lañ am tey ñaan yàlla di ko fekke at yu baree baree bare tey ñaanal ñi nga xam ne nag àndoon nañ ko daaw te ànduñu ko ren tey ñaan ñun ñëpp ñu fekke waat ko dewe nag jàmm ak salaam alhamdulilah di santaat bu baax a baax a baax si liggéey bii nga xamante ni moom lañu sumb muy set setal bi nga xamante ni moom lañ def di ko waajale màggal Daaru Salaam eh, yàlla dogal sunu borom nattoo ñu ñu nekk si di nab nabi waaye ren nag ñu ngi siy sant bu baax sëñ Abdou Lahad mu suñu amar mi nga xamante ni moom moo kilifa gi ak eh, sëriñ As Guédé mu sëriñ Daam eh, di sant bu baax a baax sëriñ Cheikhouna Mbacke mu sëriñ Modalim sëriñ Mamor Mbacke ñoom wax dëgg yàlla seen taxawaay bu rafet sëriñ Mamour mu sëriñ Abdou Diandoum tamit wax dëgg yàlla ànd nañu ak ñun liggéey bi si gën ngaa anam rafet di sant di ñaanal bu baax a baax kilifa gi nga xamante ni mooy sëriñ Abo mooy sëriñ Abo Mbàkke suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko liggéey bi nag comme ni ko soxna si waxee léegi rek wax dëgg yàlla lu kawe njort lañ si am ndaxte daan nañ bale ba pare di xëy di xoolaat di wëraat ay jalak wala di wër mbalit mu fi des ñu di ko àggale waaye suñu borom dimbali nañu kàttan nañu ba tey bi ñu deux laata na jot ba dëkk bi set na ay tonni mbalit rek moo fi des loolu nag ñi ngi si sant bu baax a baax daayira yi nga xam mboolem daayira yi nga xam ne ñoom lañ ko nekk biir dëkk bi ak mbootaay yi nga xamante ni ñoo nekk suñu ginnaaw ak association yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoom ñëpp jàpp nañ si liggéey bu baax a baax euh, soxna Astou Mbacke ibnu soxna Daba maam Cheikh Anta ak soxna maam Fati ñoom tamit wax dëgg yàlla ñoo ñu ànd seen mbooloo jàpp nañ si liggéey bu baax a baax a baax soxna maam Issa Ahlu Café mu nekku fi waaye njabootam teew nañ fi wax dëgg yàlla bis bi bis bu muy waajal la Euh, waa Touba sa kanam ñoom amuñu seen fay ñu ñaan sunu borom ñëpp ñu ngi si biir sax waaye wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo jiite daayira bi ak sëñ Abibu mi nga xam ne moo ko jiite mu sëñ Fàllu seen taxawaay rafet na lool lépp lañ ànd ak ñun lépp jëmul sax si mbale mi waaye lépp lañ ànd ak màggal gi kon ñu ngi ñaan sunu borom gën a dooleel mbooloo moom bu baax lépp lépp luñ si séntu rek ñu am ko ñu kawe njort euh, mairie mairie yi nga xam ne ñoo ñu seq muy mairie Touba Euh, sëñ Abdou Lahad Ka jiite ko ak mairie Mbacke sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou euh, Mbacke Ndaw jiite ko wax dëgg yàlla ñoom tamit seen taxawaay rafet na euh, ñoom ñoom lañ koy defal ndax seetu dëkk bi moom loolu daanaka seen loxo la nekk waaye jàpp nañ si loolu bañ ñëpp xam ne jàpp nañ si bu baax a baax a baax di sant bu baax tamit mboolem mboolem nga xamante ni teew nañ fi sax tudd ñu leen sanc yi nga xamante ni wala Touba Daaru Salaam sëñ Fallou Tine bu ñu ko tuddee rek yóbbaale na ñëpp waa kër Serigne Moustapha Fatikan nekk ñoom tamit si yokk bi si Daaru Salaam wax dëgg yàlla ñoom tamit seen mbooloo teew nañ fi teewal fi Baye Fall yëpp mm, liggéey bi nag Baye Fall yi ñoo si jut comme ni ñu ko sëñ euh, Moustapha Fall Mbar waxee te jamono ji moom moo fi doon toog wax dëgg yàlla euh, dañoo nekk si liggéey muy si ndigal moo tax teewaay bi xaw ni waaye am nañu seen mbooloo am na ñu fi nekkoon kon liggéey bi macha allah lépp jaar na si yoon. ko dañuy santaat rek di gërëm ñëpp bu baax a baax di ñaan sunu borom kàttanal ñu ba ñu gën koo man gën kaa jekku hmm. ba ñu gën kaa man bu baax a baax gën koo jekku ba lépp loo xamante nii rek eh, yéene nañ ko si rek ñu am si lu kawe njot barke Serigne Touba. soxna maam Anta jaa duñ ko fàtte wax dëgg yàlla moom tamit wax dëgg yàlla jàpp na si bu baax a baax si liggéey bi moom at mu jot da koy ànd ak ñun ba muy metti ba léegi nii wax dëgg yàlla waaye nag ñu ngi koy moom li muy def boppam la koy defal. te xam nañ ko yàgg nañ ko xam si yu mel noonu waaw li soxna yi moom lañ si jiital dañ si jox jox soxna Ndey Jóob rek bi ñu ko joxee mu jàll lañu ko ci mbokk mboolem soxna yi nga xam ne ngi si dëkk bi ak mbootaay yi nga xamante ne ñu ngi si dëkk bi ñoom moom lépp ñoom la bu doon ñoom moom wax dëgg yàlla mën naa bañ egsi fii waaye nañ xam ne li ñuy def lépp seen bopp lañ koy defal di ñaan fépp foo xamante nii rek séntu nañ àgg fa yàlla nañ am lu kawe seen njort yàlla rombal leen foofu ba lépp loo xamante ni ñu ngi koy séntu si dëkk bi rek ñu am si l kawe njort barke Serigne Touba yàlla nañu yàlla yóbbu si màggal gi ak bisimilah rahmaani rahim ñu génn si ak alhamdulilahi rabil alamin lépp bu baax ak Serigne Touba jërë ngeen jëf.